donc salaamaaleykum donc salaamaaleykum ma ñëwaat ah gars yi euh, maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp bu baax gis naa seen message yi dëmb ak seen différents seen appels yi yëpp ak seen soutien bi je vous remercie infiniment yéen ñëpp ah. donc ñu continuer ci loo xam ne moom moo war a nekk suñu taxawaay ci moment yu difficile yu suñu dëkk di traversé ok donc euh, affaire yi man nan laa ko gisee sama gars yi ma expliqué leen dëmb non dëmb la je crois la waaw gis ngeen ñu def benn vidéo ak ay gilets jaunes donc gilets jaunes yooyu noonu ñoom ñoo ñoom ci élitu gilets jaunes yi lañ bokkoon. donc dama leen laaj ñoom nan la ñuy fexe ba organiser wu pour xam ñun Sénégal nan la ñu war a mën a copier organisation gilets jaunes yi parce que dañoo am organisation bu baax boo xam ne seen xeex yi vraiment macha allah ñëpp dañ koy dégg ci àdduna bi. donc ma laaj leen benn affaire ñu expliquer ma ko loo xam ne sénégalais mun nañ ci inspiré wu donc. ne nañ ma ñoom dañoo fexe ba recenser rond-point yëpp yu existé ñoom région yu ñu nekk loolu mooy lan comme Dakar yéen xam ngeen ré xam ngeen rond-point yëpp yu existé Dakar te xam ngeen lieu stratégique yi mooy euh, fu ñuy fu fu autorités yi di liggéey ak fu ñenn nit yi télévision rajo yi ak yooyu noonu yëpp donc benn méthode bu simple boo leen mën a def bu leen déclarer marché bu leen déclarer dara na nekk génnee na ngeen am seen concept bopp loo xam ne mun ngeen ko inspiré pas gilet jaune pas gilet rouge yéenay xool lu gën a lu gën a lu gën a original loo leen mën a adopté comme comme comme kii. ngeen ku nekk individuellement nga génn ñëw taxaw xanaa boobu policier du la laal nga génn par exemple bu dee ñun dañoo ne gilet rouge la ku nekk génn taxaw sol sa gilet rouge taxaw benn endroit bu nekkee rond la ku nekk génn taxaw sol sa gilet rouge taxaw ci ci kaw rond point bi pas barré route pas def dara. mais bu ko cinquante personnes defee suba yeneen cinquante personnes dinañ leen rallier ginnaaw suba yeneen cinquante personnes dinañ leen rallier boobu kenn du leen dóor ndax da di manifester defoo leen dara bloqué woo leen dara mais sa sera un signal Sénégal yëpp bu ñu ko adopté comme méthode bientôt benn révolution dina jóg. kon ku nekk yow bu fekkee yéen mun ngeen xool benn concept wala ñu jël ñu ne ñun gilet rouge la ñuy jël. ñu jël gilet rouge ku nekk sol gilet rouge am taxaw ci kaw rompoin point bi dérangé woo manifesté woo defoo dara suba di nga gis beneen gilet rouge buy ñëw taxaw ak yow ginaaw suba di nga gisaat beneen gilet rouge buy ñëw taxaw ak yow donc waa Ziguinchor ñu ñu yor ñu ñu mun a jënd ay gilet rouge wala bu ñu nee ñun benn façon yëre la ñuy jël boo xam ne moom mooy nekk suñu signe de révolte nee naa leen combat bi élite gilets jaunes yi ñoo ma ko expliqué ñoo ma expliqué ñoom nan la xeexee ñoom ak nan la ñuy organiser wu ak combat gilet jaune bi nu mu jógee donc nekk day ñëw am Euh, pas de gilet seulement des drapeaux ok comme par exemple Anne Chérie lu mu wax nii drapo Sénégal ku ci nekk ñëw taxaw yor sa drapeau Sénégal am benn lieu boo xam ne boo fa taxawee ñëpp dinañ la gis mais doo dóor kenn doo saaga kenn doo bloqué tali doo def dara nga ñëw jël sa drapeau taxaw fa. suba di nga gis keneen ku ñëw jël drapeau taxaw fa ginnaaw suba di nga gisaat keneen ku jël drapeau taxaw fa au final il y aura des centaines de milliers loolu moo tax ñu tëj ñu jàppoon Abdou Karim parce que idée boobu noonu bu bëggoon lancé idée boobu bu ko lancé woon ba Sénégalais yi topp ci rek révolution dina jóg donc actuellement mun nañ def loolu bu ñu tey cinq personnes ñu tëj leen suba du duñ tëj kenn sax parce que amuñu benn droit ngeen dem alerter ñëpp ñëpp ñuy représenter droit de l'homme ngeen fexe alerter leen ne leen dinañ ñëw duñu bloqué tali duñu def dara dañuy ñëw taxaw gars yi ngeen indi caméra ngeen ki invité ñëpp ñoo xam ne mun nañ filmer ay action bu fekkee jàpp nañ ay nit ci ay ci ay ngeen yor seen téléphone di filmer tamit bu fekkee de bu fekkee ñoom def nañu def nañu abus de abus abus pour dóor leen ou def leen quoi que ce soit ngeen génne woo woo ay droits de l'homme ay euh, ay rado ak yeneen organisation yu yu existé ngeen ne leen ñun dinañ génn du ñu manifester du ñu def dara mais dañuy ñëw taxaw benn endroit boo xam ne dañ fay taxaw parce que dañoo am lu ñu metti ku nekk def ko ñun ñëpp ñëpp génn cinq mun na commencé affaire gilet jaune yi da ngay gis région boo xamante ni benn nit mooy génn taxaw ci kaw rond-point bi yor chaise am suba nga gis dix personnes ñëw rejoindre ko ginnaaw suba nga benn début bi peut-être ay benn benn benn la mais benn benn benn ci région bu nekk loolu mooy indi cent cent cent ci région bu nekk donc affaire bi que ñu ngi am lu ñu metti ba léegi ñu manifester kenn xalaatul manifester léegi ku nekk ku am lu ko metti taxawal génnal nga taxaw benn endroit nga xool suba ndax kenn dina la fa rejoindre suba boo moytul di nga gis benn jàmbaar boo xam ne gis na la fa mu ñëw rejoindre solidaire ak yow ne man en solidarité ak kii nii lu muy xeex man tamit am naa lu ma ginnaaw suba nga gisal keneen ku jog ne solidarité pour kii ni taxaw fii nii parce que am na lu ko metti man tamit ñëw naa taxaw am naa lu ma metti léegi ñu xool Sénégal yëpp ñëpp bu ñu génnee ñu taxaw am lu leen metti ñu xool lan lay joxe barki yàlla boo leen ko defee boo leen ko defee révolution dina jóg Sénégal te kenn du leen sañ laal kenn du leen laal parce que baare woo leen dara xeexoo leen ak kenn ngeen alerte ñëpp ñëpp ñuy représenter droit de l'homme Sénégal ngeen alerter leen ne leen du ñu baare dara du ñu xeex ak kenn du ñu saaga kenn du ñu toj dara mais dañuy ñëw taxaw fii nii parce que am nañ lu ñu metti barki yàlla boo leen ko defee léegi nag boo leen ko defee euh, ma mu continuer explique leen gilet jaune yooyu lan lañ ma expliquer waat ci seen explication nee nañ ma ñoom bu ñuy dem ci rencontre bu ñuy dem ci rencontre parce que par exemple ñu xool nit yoo xamante ni ñoom ñoo nekk premiere personne yu fa taxaw gars yi d'habitude dañ leen di jéem corrompre invité leen pour ñu waxtaan ak ñoom rencontre bi ñoom bu ñu fa demee il t'oblige ñoom en plus ñu fay dem au hasard lañ leen di sélectionné au hasard dañuy tirage au sort ne kii mooy dem répondre te boo demee moment bi ngay dugg ba moment bi ngeen di waxtaan yëpp da nga koy filmer gars yi gis gars yi xam loo fay waxtaan ak ñoom lépp danga koy filmer du am benn seconde boo xamante ni yow kese dinga fa nekk di waxtaan loo xamante ni kenn santu la ko da ngay filmer lépp loo xam ne da koy waxtaan ak gaay donc pour mu leer pour ñu bañ a corrompre kenn léegi buñ ko defee da ngay ànd ak ay nit te ñooñu yëpp tirage au sort lañ leen di choisir kon tey dañuy naan ñii ñoom ñooy leader rond point bii nii te leader bi day tourner une semaine plus ñu jël keneen tiré ko au sort ne kii mooy leader rond bii nii. après chaque jour yéen ngeen taxaw rek ngeen yor seen téléphone boo leen mënee filmer ngeen filmer ñeneen ñu yor seen caméra mën a filmer ngeen filmer ngeen taxaw billaahi Sénégal yi dinañ leen fa rejoindre du ñu dóor kenn du ñu saaga kenn du ñu manifester bloqué tali du ñu def dara gilet affaire gilet jaune noonu la jógee. ma expliquer leen mooy idée bi ñu ko ñu ko yëkkati ci gilet jaune yi seen chef yi ñoo xamante ni ñoom ci seen chef yi ñu taxaw xalaat affaire gilet jaune bi lu ñu ma expliquer moom laa leen di expliquer léegi nag man explication kese laa mën naa man maa ngi fii di xool loo xamante ni mun naa ko jàppale sama askan saa yu ma déggee façon organisation pour xeex injustice am na may dem laaj ay nit pour di inspirer wu pour sama sama mbokk sénégalais mun ci inspirer wu ñoom tamit léegi puisque manifestation xam ngeen ni du am. léegi gars yi génn leen benn par benn na ku nekk génn ci région bu nekk nga sa jël sa benn drapeau taxaw benn endroit nii rek taxaw fa matin ba soir nga xool ndax suba kenn du la fa ñëw rejoindre wala ginnaaw suba du am kenn ku lay ñëw rejoindre. loolu bu ñu ko defee léegi léegi léegi lu ñu metti yëpp ci élection yi mu jeex ñu faj ko léegi léegi léegi waaw loolu moo nekkoon message bi. ngeen partagé ko nag partage bi su ma koy wax ñenn ni dañu yaakaar ni man du question de amerde leen ci partage mais c'est parce que lu ñuy wax ni yëpp buñ ko partagé wul sénégalais yi jot ko do am benn sens may génn di dafay direct moo gën ma arrêté di dafay direct ma nekk ci sama xeexu panafricain bi donc partage bi pour permettre la ay nit ñuy dégg tamit ñuy xam ñu bu fekkee am na ñoo xam ne parewuñu ñuy seetaan live bi ñu pare ñu mun ko appliquer au moins donc sans su partager ak pour nit yi jot message bi loolu la quoi du pour leneen donc euh, bu ko ñëpp bu ko bu bu so bu affaire yi bu soxalee ñëpp ñu mu gën a soxal bi dama bëgg ngeen di jàllale message yi ngeen koy kii pour ñeneen jot ko parce que na ñoo xam ne ñu ngi ci sama compte Facebook bi mënuma leen seppi ñoom ñëpp lu ñu bëgg mooy bloquer sama compte bi pour ma bañ a ajouter ñeneen mais du ñu mës a message yi pour ñeneen jot ko parce que lu may wax arrangé wu leen dañ fi nekk pour di di fàtte nit yi ak di xam lan la ñuy préparer mais léegi gars yi action boobu noonu waa Ziguinchor buñu ko defee waa Thiès def ko waa feneen def ko ñu taxaw rek benn rond point waa Thiès ne ñoom place de France la ñuy taxaw mu am dix Thiessois yu génn taxaw place de France defuñu kenn dara saagawuñu kenn xasuñu kenn taxaw place de France ñeneen jóge yeneen sénégalais yeneen yeneen sénégalais jóg euh, place kii bi mooy Saint-Louis. Euh, place euh, gaayan boobu noonu ma bañ a tudd tubaab boobu noonu rek ñu tuddee place bi ah ñu génn ñu taxaw fa dix Sénégal dix Thiès dix euh, Saint-Louisien génn taxaw fa ginnaaw suba yeneen dix kii génn Ziguinchor ci rond bi ñu taxaw fa bloqué wuñu rond ñu taxaw ci kaw rond bi rek ñeneen def ko Thiès Kaolack Fatick Diourbel ñëpp def ko ñu génn filmer ko amul manifestation amul dara amul blocage u tali amul dara ñu ko mën a appliquer message baa ngi noonu ngeen jàllale ko man maa ngi def li ma mën vraiment parce que am naa li lam li ma metti ñu bëri am nañ li ma li leen metti chaque jour ñu may woo naan ma géej nga dafay direct di wax ak gars yi lan mooy action yi lan mooy plan yi plan bu gën a yomb boo xam ne du ma ne kenn demal toj quoi que ce soit du ma ne kenn demal taal quoi que ce soi waaye léegi nag lii boo leen ko mënee def sama gars yi ngeen xam ne man def def naa li ma mën dem naa laaj gars yi ñoo xam ne jox nañ ma ay méthode ay technique léegi dama koy actualiser nag danaa war war naa waxtaan ak ñeneen pour ay plan d'action yu gën a xoot waaye léegi képp koo xam ne ñëpp ñoo xam ne pare nañu nag bind leen ma ci suuf après man lépp lu ma ci am comme actualité bu bees rek ma leen koy wax après boo leen ko mënee yokk ci li ma wax ni ñu koy ñu koy jéem parce que affaire yi nii toog croiser loxo yi nii du loolu moo ñuy génnee ci lu ñuy dund de ko xalaat xalaat rek yaa ngi tromper sa bopp donc na ñëpp pare euh, pour ñuy soogee rejoindre plan d'action bu simple la ku nekk ku képp ku am lu ko metti génnal nga taxaw ci benn endroit foo xam ne boo fa taxawee ñëpp dinañ la gis fépp bu nekkee bu nekkee Kaolack la nga taxaw foo xamante ni Kaolack képp kuy Kaolack waa dina boo fa boo fa taxawee dina la gis nga taxaw fa taxaw fa comme statue rek bañ a bañ a bañ a bloqué dara bañ a xaañ kenn dara nga taxaw fa suba dina am beneen Kaolack waa bu génn ñëw taxawaat foofu ak yow ginnaaw suba dina am beneen Kaolack waa bu génn ñëw taxawaat fa ak yow cees ngeen def la même chose dem place de France taxaw dix premier yow nga nekk première personne bu koy initier parce que affaire gilet jaune yi noonu la commencé benn nit moo koy initier ñeneen nit rejoindre ko bu fekkee Thiès amul kenn ku déterminé yow nga génn taxaw nga ne maa ngi taxaw fii parce que am naa lu boo yoree drapeau nga yor sa drapeau national taxaw fa suba di nga gis yeneen Ceesuwaay yu génn ñëw taxaw fa ak yow ñu nekk Dakar génn ne place de l'indépendance maa ngi nii taxaw xaañuma kenn bloqué wu dara maa ngi nii taxaw parce que am naa lu ma metti ginnaaw suba di nga gisaat yeneen sénégalais yu génn seen biir kër ñëw taxaw fa ak yow place de l'indépendance parce que am nañ lu leen metti waa waa waa Saint-Louis ngeen dem taxaw ngeen ne am naa lu ma metti fii nii du ma fa jóge am naa lu ma metti saagawuma kenn xasuma kenn bloqué dara maa ngi nii taxaw ci rond bi parce que am naa lu ma metti nga xool ñu def ko ci région Sénégal yëpp en une semaine y aura des centaines de milliers de Sénégalais yoo xam ne ils seront réunis dans tout le Sénégal taxaw pacifiquement parce que am nañ lu leen metti buñ leen naree laal. bu ñu leen naree laal après moo wax leen yeneen plan d'action yoo xam ne gilets jaunes yi dañ ma koy actualiser quoi maa ngi waxtaan ak gars yi nag dee leen partager message yi du pour man mais pour askanu Sénégal la donc ñu xool ñu ne la ñuy libérer suñu peuple par rapport ak injustice boo xam ne moom moo fi nekk donc sans cesse ñu baña a par rapport ak quoi que ce soit amul lu impossible lu nit mënul changé ci àdduna nous some cette majorité qui représente ces quinze millions de Sénégalais donc majorité boobu noonu bu conscientee ni el peut changer el peut penser faire la balance de son côté rek majorité boobu noonu elle devient incontrôlable donc elle elle devient elle elle elle elle devient menaçante pour le pouvoir donc comme loolu mooy plan d'action bi ngeen fexe ngeen partagé ko bu baax képp ko am ci ci live bi nii lu la metti maa ngi lay ñaan suba région boo mun ti nekk foo ti taxaw. foo xam ne nit yi dinañ la fa gis nga taxaw suba dina am keneen ku la fa rejoindre képp képp yen ñii nii yëpp vous pouvez le faire génn leen ngeen taxaw benn endroit ngeen taxaw fa parce que am ngeen lu leen metti ok génn leen rek taxaw benn endroit parce que am ngeen lu leen metti di ngeen loolu moo nekkoon affaire bi salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di ziar yéen ñëpp partagé leen message bi bu baax ba gars yi yëpp jot ko partagé leen ko bu a baax a baax